asalaamaaleykum man maa ngi tudd euh, Moustapha Diop <coughs> nekk euh, donc associé dans la société 375 euh, bi nga xamante ni moo nekkoon prestateur logistique bi pour le concert CATB bu démb samedi 3 juillet fii si Centenaire rue 25 Médina. d'abord est-ce que mën nañu ñëw ci événement bi wàllu organisation bi et ban taxawaay nga ci amoon en tant que ki yoroon responsable. waa non événement bi suñu taxawaay c'est très simple là-dessus parce que euh, ñun ak euh, CATB yàgg nañu liggéey nous nous sommes prestataires de euh, fournisseurs de logistique dévénement donc ça fait plus de quatre ans que ñuy liggéey ak CATB Cheikh Ba en personne donc dañ ko accompagner pendant quatre ans sur ces différentes activités ngeen baal ma nag concert bi coono bi moo tax sama baat bi xaw a dee Euh, wax ju du neex mais j'espère que dina nañ ko mën a dégg donc ça fait quatre ans que ñu nekk di collaborer ak Cheikh Ba di ko accompagner dans la plupart de ses activités yi nga xamante ni daf ci laaj soxla ci su suñu ay logistique ak suñu ay conseil donc loolu moo ñu booleex moom ba mu am euh, amoon donc soirée de gala bi ak Wally Covid bi tax ñu annulé ko léegi ñu jël disposition wu seen biir ñoom def concert bi fii démb bi ñu ko waxee nag ñu waxtaan ci trouver ay solution ñu leen defalee tout la logistique concert bi donc conseiller leen accompagner leen sur l'organisation loolu moo doon suñu taxawaay. léegi sur le plan technique mën ngeen liggéeyee démb concert bi parce que gis nañu démb ngeen innové ba def ay écran géant partout concert bi réussir macha allah. waaw xam liggéey bi moom euh, euh, boo ko bëggee def il faut nga passionné. parce que liggéey la boo xamante ni euh, liggéey bu metti la parce que fii fondamentalement def nañ fi quatre jours pour mën a teg lii te quatre jours yi sax doyuñu problème d'autorisation moo tax mënuñu woon jël une semaine mais concert bi nu toll foo dem feneen dañ ko jël une semaine pour préparer comme minimum voire dix jours maintenant innovation bi euh, liñ fi gis mooy li ñuy gis ci concert yëpp fondamentalement concert yu mag yi peut-être démb liñ ci andi woon apporter ko. mooy dañu bëggoon def un peu de mapping maanaam jël benn mur habillé ko euh, topp euh, niñ ko bindee mooy mur bi sama ginnaaw dañ ko jëloon décision ne dañuy def du mapping euh, mapping bi mooy <clears throat> dañ ci doon projeté ay image ay images yoo xamante ni dañ ko travaillé en infographie ak architecture auparavant pour mën ko habiller andi quelque chose de nouveau andi quelque chose de plus parce que li ñuy def encore une fois suñu passion la du loo xamante ni sax euh, Cheikh Ba bi nga xamante ni moom mooy commanditaire u travaux yi laaj nañu ko mais ñun ñoo xam ni tolluwaayu spectacle foofu la toll ñu jéem ci def loo xamante ni euh, lu ëpp liñ daan def la dañ demee suñu xol beneen beneen sens bi aussi il faut ñu xam ni ñun fii lañ dëkk Médina Gueule Tapée ñun fii lañ dëkk fii lañ juddoo fi lañ màggee fii lañ yaroo donc lu ñu am si loo xamante ni jumtuwaay la euh, mu neex mu naqari war nañu fexe ba euh, ñu séddoo ko ak waa wax population yi wan leen leen seen ay doom yu nekk fii parce que ñiy liggéey si site bi yëpp quatre-vingt-dix pour cent yi ay booyu dëkk Médina lañ ay rue 10 Médina Centenaire Colobane Fass Gueule Tapée donc alentour bi ñoom ñoo def euh, événement bi yëpp ñun conception lañ ci am mais ñoom ñoo koy exécuter à la lettre donc loolu moo tax ñu yokkoon ci ne mur bi suñu ginnaaw ak mur bi ma jàkkaarlool muy ñaari bâtiment yi nga xamante ni ñoo seq rond point bi dañ ciy yokk loo xamante ne image la te ñu fi nekkoon wala ñu seetaan concert bi seen kër su fekkente ne réalisateur bi bàyyi na ci xel bu baax parce que wax nañ ko ko euh, gis nañ ni que am nañ luñ ci def voilà. tey suba gis ay polémique ay publication di wax ay ay barres de couleur que Tapha mën ñëwaat ci loolu. waaw man euh, sama benn xarit <coughs> ngeen baal ma bi comme je dafa xaw a dee sama benn xarit ma yee yónnee ma benn message yu euh, euh, message mi ngi ci bind Jamra ñoo ko ñoo ñoo def publication bi sur Facebook. pour wax ni encore xaw ma Wally Seck si affaire LGBT après coow man bi ma ko bi ma ko bi ma wax ma ko sax dama ko ne bul yàq sama nelaw loolu man mënul yàq sama nelaw parce que damay damay damay reposer maa ngi tëdd bi ma julee fajar ba pare na ma may rek man damay nelaw mais après coow li bëri keneen ak keneen ku nekk woote parce que sama téléphone en général du koy tëj je me suis rendu compte que affaire bi jël na benn tournure virale ku nekk du ci wax Euh, ne que Wally moo demandé encore ñu man wala samay équipe ñu projeté ko image bi nga xamante ni mooy couleuru LGBT xam nga Sénégal euh, dafa metti li tax Sénégal metti mooy euh, li ci ëpp si nit ñi waxuma ñëpp de li si ëpp si nit ñi liggéeyuñu jaamuñu yàlla parce que boo dee liggéey wala ngay jaamu yàlla war nga màndu bu baax ci li ngay wax ak ci li ngay def a bàyyi xel sa moroom li muy def ba loo ciy wax mu nekk lu la leer su fekkente ni li ñu projeté démb couleuru LGBT la man xawma sax couleuru LGBT nu mu mel parce que intéressé wu ma du ci arrêté wu mais couleur ñun ñëpp dañ judd fekk ko fi tey couleur yi ñuy wax noonu mi ngi jóge si Euh, video projecteur bu 30 000 lumens bi ñu tegoon fii pour projeter si mur bi ku nekk seetlu nga sa bi couleur bi télévision couleur commencé dans le monde waxuma sax Sénégal dans le monde ba léegi boo daan taal sa télé de bar boobu ngay njëkk a jot mooy composante couleur yi nga xamante ni moom mooy norme couleur yi nit ñi euh, di dund di sol di demee mais boo delloo balaa sax euh, euh, euh, télévision couleur di ñëw ku nekk xam na arc-en-ciel arc si si si si jaw jaww ji la ñuy xool ni la gis ko kan moo ko créé du tubaab bi du kenn mbiru suñu borom la si période hivernale nii mu jox ñu couleur yoo xamante ni ay couleuru arc en la boo jógee si couleur arc si ñi ma gën a féete ñi ma maaseel bu ñu ko bu tawaan taw bu bëri sax dafa am lu ñuy woowee arbis ay couleur la yoo xamante ne day nekk si suuf si kenn du ñëw peinture ko ci taw bee koy def mu am effet boo xamante ni couleur arc boobu daanaka moo ci nekk ce sont fondamentalement lay même couleurs couleur yooyu nag moom la def si logiciel yëpp lépp luy technologie lépp luy caméra lépp luy téléviseur lépp luy logiciel mire de barre boobu moo lay permettre nga xam ndax yaa ngi jot signal wala yaa ngi envoyé signal donc ñun vidéo projecteur bi ñu yor moo yor mur de barre ku mu neex na seet teleem ku mu neex na dem si internet bi laajte mur de bar mooy lan am na ñoo xam ne dañ koy woowee mur de barre mais mur de barre la loo xamante ni technologie bi moo ko mayee ñu siy liggéey am si base boo xamante ni c'est la ñuy calibrer li ñuy liggéey yëpp donc loolu moom la ñu euh, projeté démba te biñ koy projeté dañu fay vidéo projecteur bi boo ko fayee mur de barre boobu la lay jox tey boo demee te Excaf euh, TNT euh, am na foo xam ne boo fa taalee boo fa tolloo mur de barre boobu ngay jot boo demee canal mur de barre boobu ngay jot boo demee TFM 2S sa téléviseur yëpp boo boo demee am na foo xam ne mur de barre boobu ngay jot parce que loolu mooy base u euh, caméra yeex télé yi nga xamante ni dañu nekk couleur ci NTC la jógee donc loolu ay jumtuwaay la yu nit ñi di liggéeyee te may euh, firndeel nit ñi ne que Wally avant concert bi bi mu nekkee ak Cheikh ba la ñu wax man ak moom mu naan ma euh, père dimbali ma defal le maximum si concert bi loolu tax ak ñu koy defal Cheikh ba ñu def le maximum si concert bi bi ñu concerté woo man ak suma associé ak suñu personnel ñu waxtaan ñu ne nañ def le maximum si concert bi donc ba bi Wally Seck ñëwee si concert bi ba ba muy g man moom waxuñu te ñun tal nañ leneen lu dul dugg si ay lobby wu LGBT ou pas LGBT Wally commandé wul image bi yëgul sax ni image boobu am na xëy na ni ko nit ñi di découvrir moom noonu la ko découvrir su fekkente ni bàyyi na ci xel te ñu dimbali Wally nag loolu moom dama koy wax si kóllëre bu ma seqoo moom nañ ko may jàmmam bàyyi ko mu liggéey li muy liggéey te moom it mu moytu loo xamante ni da koy andil coow gën a recadrer toogam parce que yàlla nga koy may yàlla nga koy ubbil ay yoon yoo xamante ni ñëpp a ngi ciy teg bët donc nañu moytu euh, vraiment di dugg si loo xamante ni maîtriser wuñ ko techniciens yi ñiy liggéey si site internet yi caméraman yéen ñi ngeen doon yéen ñii ñëpp a taxaw fii di di ma di ma seetaan xam ngeen bu baax li may wax li ñu projeté démb mur de barre pensé wu ko weesu wu ko euh, dabu ko mur de baar kese la amul leneen waale nag démb bi muy wàcc di wax ni dafa weex dung effectivement sur l'autorisation le préfet le sous-préfet avait autorisé minuit ñu communiqué ko wax ko ne ko minuit lañu ñu autorisé pour que euh, manifestation bi jeex il a joué au-delà de minuit parce que dañ ko wax dem na ba une heure muy wax ni dafa weex donc loolu moo taxoon man maa demandé Cheikh Ba mu yéeg si kaw wax moom communiqué mais wax ko ni que mën nañ dem ba une heure du matin donc encore une fois yëgul tinul commandé wul waxuñu ba tey sànq bi coow li amee la ñuy doog a wax man ak moom ma ne ko comme nag ñun dañuy si tudd ah Sénégal yaakaar naa li ñu xamee mooy fulla ak fayda liggéey taluñu leneen. moo tax ñu ne nañu woo ñi nga xamante ni euh, mën nañu passer message bi ñu xamal leen ni que mur de Bar la amul leneen lu ci laxasu wala lu ci lonku kuy wax na nga wax lu la leer voilà lool la xam ni euh, jàppoon naa ko ci li ñu mën a wax su fekkente ni da am question très bien su fekkente ni amu leen question maa ngi leen di remercier si seen teewaay yéen ñëpp di feddali suñu korole ak euh, Médina Médina gi yëpp rawatina ak Cheikh Ba di remercier Waly si prestation bi mu def démb seen une prestation magnifique di remercier waa 2STV parce que ça s'est super bien passé euh, wasalaam jërë ngeen jëf. mën xam ndax nga wax ak Waly affaire yi moom laa lay wax Waly sànq la laa ko jot si téléphone mu woo ma wax ma ni ma mais père coow li nii lan moo ko andi. Euh, ma expliqué ko li nga xamante ni moo ko andi wax ko ni ko man dinaa jël sama ay responsabilité parce que tudd nañ ma ci pour leeralal nit ñi fi ñu toll ci liggéey am na loo xamante ni waalu tali waali si boppam talu ko man taluma ko ñii liggéey taluñu ko ñeneen ñi tal leneen nag nañu seet leneen lu ñu tal mais mbiru góor jigéen amu fi jegewu fi wóoru fi. nga gisee presse léegi information bi ni que jotul information yi balaa ñu koy génnee comme waaw xam nga léegi presse dafa nekk à la disposition de tout le monde euh, moo tax nga nga dégg ñuy wax les GAFA dégg ñuy wax la euh, la réglementation au niveau international au niveau mondial. excès gul si ñun ba ñu am une bonne maîtrise mais xam naa ni que état bi ñi ngi réfléchir si loolu ñu dem ci parce que du ñëpp am euh, éthique. wala responsabilité sens de la responsabilité wala ñëpp nekk ñoo xamante ni war nañu am support de presse nu mu ndaw ndaw ndaw parce que tey ku nekk mën nga yor sa page Facebook sa Twitter sa chaîne YouTube di ci def lu la neex dëkk nag euh, li koy doxal mooy réglementation euh, te réglementation ay professionnels ñoo koy def liggéey journalisme aussi ay professionnels ñoo ko war a def peut-être que formation bi mën na bañ a toll à dix mais il faut mu nekk au moins cinq six sept pour que nit ñi mën a def attention parce que l'information c'est une grosse arme parce que tey jii lii ñu waxal Wally te fekk nekkul ci moom am na lu mu koy yàqal d'abord balaa ñuy réparé waat bay toogaat dina fekk ñu bëri wax nañ ko saaga nañ ko wala cër ko ci loo xamante ni nekkul ci moom moo tax ñu war a am une meilleure maîtrise de nos support d'information quel que soit leur niveau quel que soit client yor ak quel que fi ñu nekk liberté de presse nag baax na mais euh, presse bu jaxasoo di xëppajoo baaxul ba àddunay baax bu presse déggee dara kenn wax ko ko dafay recouper dafay def lu ñuy wax recoupement recoupement bi mooy Demba wax na ma si Saliou dara damay dem si Saliou laaj ko confirmation Saliou bu ko neexee mu tontu su ko neexee mu ne loolu duma ci wax dara bu boobaa journaliste bi danaan Demba waxal na Saliou nangam jot nañu Saliou nanguwu ci tontu wala jot nañ Saliou lii la ci tontu loolu mooy liggéey bi moo tax ñu nu wax éthique ak professionnalisme xam naa ne nañ ci dem nañ ci sori mais ñi ci nekk di liggéey yëpp war nañu góor góorlu patron de presse yi war nañu góorgóorlu mais ñi nga xamante ni yor nañ seen sit ak seen ay page Facebook di communiquer aussi war nañ ci góor góorlu parce que Sénégal kenn benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar mais man dinaa ko xar-xar yu bëri dafa ñoo xamante ni. jaamu yàlla rek moo leen yitteel am ñoo xamante ni liggéey kese moo leen yitteel am ñoo xamante ni dañuy jaamu yàlla di liggéey mais li ci ëpp si ñun liggéey ñu ñu wa yàlla moo tax coow li di bëri ngeen baal ma àq jërëjëf ah, maa ngi sant yàlla di di remercier encore une fois ñëpp di remercier waa Médina parce que démb bi ñuy ñëw di def euh, euh, concert bi y avait un meeting de Bamba Fall juste à côté mais amul benn incident Euh, waa Médina Cheikh Ba ak euh, Bamba Fall duñ leen boole Cheikh Ba ak Bamba daanaka ay doomu Médina lañ ku nekk mën nga prétendre à ce dans la Médina mais nañ ko def dans le respect des règles euh, di ñaax jeunes yi fu ñu mënti toll parce que coow commune dafa tëb si dëkk bi yëpp moo nekk coow li nga xamante ni moo ëpp coow si dëkk bi ñëpp a bëgg nekk maire ñëpp a bëgg pëccoxoo Euh, communes yi ñëpp a bëgg a nekk conseil mais ku nekk loo ciy dugg loo ciy def na nga xam lan la te ku nekk looy def yaa xam jullit nga yaa xam catholique nga na nga seet sa diggante sa borom seet li ngay def nga nga maîtriser ko bu baax te mu leer na ni yaa ngi ko teg si yoon. notamment ñu ngi dégg benn question naan 37 dafa nekk si ginnaaw Cheikh Ba moo ñu boole mu woo la liggéey ngeen liggéey loolu rek la yem. 37 nekkul si ginnaaw kenn ñun. récemment def nañu ay événement pour Macky la def nañu ay événement pour ñeneen ñu dul Macky la ñu nekk si opposition bi ñun nekkuñu fi pour kenn suba bu ñu Bamba Fall woowee bëgg ñu liggéeyal ko dañ koy liggéeyal ñun dañuy liggéey rek yore ay jeunes yu bëri ñu nekk suñu biir di liggéey politique gu ñu kaskatu politique ku ko ci bëgg yor dangay da ngay jël 37.5 teg ko nii nga demal sa bopp nga def li ngay def mais feek ñi ngi nekk si biir 37.5. dañuy tëddee jaaxaandaay ñëpp lañ fi nekkal Cheikh ba nag dafa dañu tase woon mu ne ma yéen da ñu war a dimbale parce que li ñuy def dafa war a visible ñu nekk ci di ko accompagner si groupement de famille ñu mu defal Médina transformation yi des produits euh, GIE yooyu yëpp ñu fexe di ko mettre dans les conditions di ko créer cadre de communication te loolu yëpp si logistique la bokk ñun bokk ñu CATB bokkuñu si biir euh, conseil bokkuñu si organisation bokkuñu si communication mais on est disponible pour tout le monde pour l'instant moom moo ñuy woo ñu koy defal prestation on lui fait ses prestations mais bu Bamba Fall woowee ñu suba suba si ngoon ñu defal ko lu ëppal yi. merci jërëjëf.